ci turu monsieur le maire Babacar Mbeng mi nga xam ne si moo ñu jiitu moo ñu ñu ngi sante conseil municipal bi yépp parce que ñu ngi gërëm Babacar mais conseil municipal bi ñoo dolel Babacar Mbeng parce que limu indi ce conseil municipal bi buñ ko waxtané ñun bureau municipal buñu démé ce conseil municipal bi ñu adopté ka l'unanimité motax buñ fi commencé ba légui avant même suñu premier mandat lan lañ daan wax nañu fexé ba Hann Bel-Air am stade fonctionnel mais aujourd'hui yalla mu ngi ñu ngi sant yàlla bu baax parce que lan moo waraloon budget bi passé amna ñaari dotation yu nga xam ci si wate rubrique ñu wate won moy au moins 60 millions pour ñu mëna jël travaux yu nga xam ne si ñoo gëna a yemambaay ko defaraat toilette yi yokk yi ba mu nekk ben stade bi nga xam ne si ku nekk dina ci mëna dugg mais conseil municipal bi monsieur le maire loolu doyul ñun mun leen lan mo doy mu ne amoon nga yéene ville de Dakar def état du Sénégal def

tàkkusaan bu ñu jotee ñoom ñëpp ñu dem Alassane Djigo wala ñu dem Demba Diop Demba Iba ñu dem feneen mais bu boobaa seen yaay yi seen xel du dal ba ñu dellu si kon problème mu sécurité du ñu réglé ko beneen problème bi aussi ay sportif la ñu dëkk bi mooy dëkku Moustapha Ndiaye dëkk bi mooy dëkku Ousmane Thionga dëkk bi mooy dëkku Amdi Faye donc ces grands sportifs là fan la ñu jàngi sport fii kon dañu bëgg ay xale yu nga xam ñu mel noonu parce que man damay dem nañu France chaque année 2017 2018 tournoi international la seule équipe africaine qui ko gagné ñaari yoon moy équipe bi kon créer infrastructure sportive yu nga permet dañ leen permettre ñu épanouir mais nous sommes dañ ñu allier étude ak sport études, études étude le sport Les yi nga xam les meilleurs nous dem ñu top donc loolu vraiment ñun aussi ñu parce qu'il y a de cela quelques années sur le plan sportif nous étions les bons derniers mais depuis pratiquement trois ans nous faire le forum sur l'éducation nous sommes devenus la première commune sur le plan

jigéen ñi taxaw goor ñi taxaw buñu démé ñu ne tey aussi tam lolu ñu def terrain yaraax képp bi duñ ko bolé ci terrain yi pour defar ko momé tam aussi moy terrain bu moderne pour permettre suñu ASC yu nekk fofu kon ASC yu ñuy defaral lolu bu yaraax képp amé problème assainissement am beneen problème parce que loolu ñoom ñëpp war nañu jog bu njàng soxé ñom ñoom ñëpp war nañu jog war nañu continuer di organiser organiser cours de vacances mais nak ah charité bien ne commence par soi-même man miy wax ak yow maay directeur de la culture et du tourisme de la ville de Dakar duñ ñëw ay association sportive et culturelle volet culturel culturel boobu dafa sooxe dafa manqué te culture bi tant que respecté wuñ ko tant que defuñu nu ci war violence dafay am bu fekkee gars yi duñu nekk véritable acteur culturel di foo di reetaan ku nekk xam ne kii mooy sa mag kii mooy sa rak dañu war a yërmante dañu war a nekk si biir loolu moo am solo moo tax comme ñun villageois lañu village Moylan, villageois esprit esprit quand on parle de villageois c'est le terme bi nga xam approprié solidarité comme bu solidarité n'ak ah mag ñi mag lañu chef de village bi dafa doyen euh, patriarche plus de 90 ans mu ñëw le quartier de ñëw nous ñëw les c'est le moment aussi c'est une ligne def ñu beral mention spéciale jigéen ñu en Bel Air madame la maire aussi duñ nous ko yobente bu baax a baax jigéen ñi ngi taxaw ku nekk en tout cas di leen beral mention spéciale aussi journalistes à chaque fois bu ñu taxawee ngeen